di jiital ci nuyoo bi nag madame la gouverneur madame Manga mi nga xam ne moom la ñu yàlla booleel gouverneur féetale ñu ak moom ñuy réseau ni ko Fama Niang waxee léegi première sorteem ci ah, bi ñu ko affecté fii ci kaw nag réseau bi moo ko génnee ñuy sant yàlla ci loolu boobaak léegi mu ngi nekk eh, kóllëre boobu suñu diggante moom waxtu wu ñu xewlee macha allah mu gouverneur ne ko jógal sa bopp xew nañ ñoom ñu koy gërëm di ko sant di gërëm gouverneur monsieur Mbengue yal na ko yàlla fay taxawaayam démb ñu ngi woon ci CRD ba fële ca euh, Medina Baye mu ngi liggéey liggéey bu mucc ayib euh, wax yàlla mission bi mu ngi koy def yéen ñi koy accompagner yi tamit yéen a seen mission yal na yàlla gën leen a dëgëral seen i dëgg ba mu dëgëral di nuyu monsieur le maire. bi nga xam ne moo représenté ci tey madame le maire. ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko yóbbante ci madame le maire ne ko ñu ngi koy nuyu moom itamit di ko ziyaare di rafetlu taxawaayam di nuyu président de la chambre de commerce de Kaolack et de l'union des chambres de commerce du Sénégal muy le président Serigne Mboup suñu parrain le parrain éternel du réseau parrain bi nga xam ne ah, mu ngi jàppale booba ba tey bàyyiwuñu benn yoon jamono ju nekk rek mu won ñu taxawaayam ak cofeelam ci ñun yal na ko yàlla guddal fanam wéral cëram Aline Diouf même nga xam ne moom la ñu boole muy le secrétaire élu ah muy suñu njiglaay ndax ba ñuy sosi réseau bi moom la ñu boole loon moo ñu yóbbu woon ca Gambie te booba ba tey ñu ngi alioon ñu ngi jë jëm kaw rek yal na ko yàlla gën a saxal damay wax ne turi Aliou mooy yëkkatiku te moom la ñu président Serigne boole loon te tur bi jik nañu yal na ko yàlla moom it gën a yàggal te faj aajoom ñu ngi gërëm sëñ fàllu Fallou mi nga xam ne turandooram nee na kuñ ko tuddee mu Fallou sëñ Fallou ñu ngi lay nuyu di la ziyaare xeebuloo ñu benn yoon jamono ju nekk rek bu président Serigne mënul teew nga ñëw teewal ko démb ci guddi la ma woo am lu ko metti lool ne ma bu leen defati benn événement boo xam ne day tombé ak jour de semaine ndax man euh, du duma bëgg a raté seen événement damay bëgg di teew te semaine bi damay damay xat waaye nag sëñ Fallou dina ñëw sëñ Aliou dina ñëw te ni mu ko waxee la amee bu ngeen teewee rek teew na jërë ngeen jëf ci seen taxawaay di nuyu waa APROFES di nuyu waa kas waa Kafe di nuyu bàjjenu gox yi di nuyu waa IBEN ñi nga xam ne ñoo nekk ci réseau bi muy le réseau des femmes entrepreneurs et leaders sénégalo-gambiennes su ma ko tuddee nag dangeen may may bi yoon ma jiital ci Adja Ndeye Sine Diop ambassadrice bi nga xam ne Union africaine ñoo ko jël jox ko projet bi mu porté ko taxaw ci ñëw ne réseau bi yéen laa am yéenay samay wéttal yéen ci seen biir laa bokk kon fii laa koy animé fii laa koy déparé muy euh, campagne bi pour la retour de fii à l'école pendant le Covid et après le Covid ku ne xam na ne bi Covid bi amee ba tey xale yi jigéen ñi ñee ngi ci bu ngeen duggee ci garage bi di ngeen gis ñee ngi jaay ndox ñi la ngay saaf gerte ñi la ngay lakk mboq mos nañu xaalis fi mu ne te lu leen di delloo ci école problème la parents yi ñu ngi toog noppalu xale yaa ngi nduggi di togg di taaj ñenn ñi ñu ngi dem bindu ji sax di am xaalis di indi ci kër gi loolu yépp am-am euh, bu yomb la boo xam ne lu jege la loo xam ne nit ki da ciy teg loxo léegi waaye mun na yàqal xale bi njàngam ëllëg kon nu ñuy def ba campagnal xale yi ba nga xam ne duñ leen perte ndax xeexoon nañu campagnoon nañu ba gune yi taux de scolarisation bi yokku tey dañu ragal Covid bi tax mu besewaat moo waral jóg bi kon. jóg boobu nga xam ne moom la réseau des femmes entrepreneurs et leaders sénégalo gambien jóg ànd ko ak kenn ci seen membre muy Adja Ndeye seen Diop di ambassadrice aussi au niveau de l'Union africaine ñu ngi wax ne yaay yi nañ jóg nañ taxaw nañu dimbale seeni doom te nañ jàllale message bi ndax fii ñu toog nii tey amul kenn ku ñëw ak groupam président groupement yi rek la ñu te am na ñoo xam ne sax dañ leen wëññi ndax xam nga ne saal bi du suñu saal xejuñ fii waaye nag dëkk bu ne jël nañ fa benn nit pour bu ñëwee lim fiy déggee su demee mu jottali ko ña nga xam ne ñoom tamit ñoo ko moom bu ko defee yëf yi gën a tasaaroo xëy na télévision yi dinañ wax rajo yi dinañ wax waaye nag bouche à waxtaanukaay yi ci eh, eh, fi jigéen ñi di daje dina am solo lool ci groupement yi ak ci association yeeg ak yeneen ak yeneen ak dëkkandoor yeeg yeneen ñu fexee jàllale pour xale yi ñu bàyyi leen ñu dellu ci école da bàyyi leen ñu dellu ci daara yi ndax buñ ne école rek dafa mel ni ecole français rek ngay wax waaye nag boo ne daara dinañ xam ne njàng moom njàng rek la tudd ndax kiy jàng ci li nga jàng ci diine tey muy arabe wala anglais wala français buñ ne woon un plus un boo demoon calcul bi boo ko xisaabee buñ la ko firiree benn rek lay doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon na nañu jëli genn wàlli xam-xam yépp addu xam-xam yépp boo ko boole woon muy benn mu ne genn wàll gi di ko fekk ci sayyidatuna Aïcha mu ne nañ leen dem leen ngeen jël seen genn wàlli xam-xam ci jigéen ju gàtt ju tuuti jëlee yu xees jeex muy Seydatuna Aïcha da daan atte comme avocat Seydatuna Aïcha li gën a jafe ci islam muy euh, fiq miraas sax da ko daan def da daan jàngale comme enseignante da daan faj comme médecine te jigéen la woon te benn nit la woon te boole woon loolu yëpp ci wetu yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa njàng euh, l'islam daf ko digle ñu ngi ci benn dossier boo xam ne yaa Roqiyata Baye mu Cheikh Ibrahima Niass ci lañ nekk fan yi di ci liggéey jigéen bi njëkk a bind livre ité littéraire ci arabe dans le monde fii ci ouest Afrique moom la te bind na du benn téere la bind ay téere téere te bind téere yi bind yépp ci jigéen la ko jox pour taxawaayu jigéen ak droit jigéen ak darajee jigéen ci suñu cër fa aatuhunna ujurahunna mu ne ndax jigéen bu amee devoir dafa war a am ay droit aussi kon nag nañ leen xam suñu bopp delloo suñu bopp yàlla jël xale yi jàngal leen seen diine jàngal leen aussi ci seen àdduna ba mu mel ni dootuñu fi jógee ndax noonu la ko yonent bi diglee te ñu gis ne ah macha allah wax nañ ko léegi madame le maire de Kaolack jigéen la waaye yemul ci jigéen rek mooy tey le ministre bi nga xam ne moo yore euh, euh, lépp loo xam ne fonction publique la te jaar na ci mission de la femme ak yeneen ak yeneen ministre de la femme a ngi fi kan lañ dénk tey euh, conseil économique et social madame mi Touré te nekkoon na fi première ministre ki ñu sampal tey réseau bi di Fatoumata Diallo Tamba Niang kan la première euh, vice euh, vice présidente bu Gambie kon ñu xam ne jigéen yàgg naa takk sër waaye tamit yàgg naa fa tabaarakalla doon jàmbaar parce que ñu ne góor góorgóorlu sax dafay mel ni dafa dafa dafa am sax lu des ci moom waaye jigéenu jàmbaar yi ak góori jàmbaar yi ñoo mus di am yal na yàlla dolli ñu dimbale ñu ngi gërëm waa réseau bi yëpp nag waa Thiès. waa Komoli waa War Jaxel Kébé Wolof kebe Séeréer cakalaar Lincoln Nioro association des handicapés foofu dangeen ngeen may may ma taxaw tuuti ak a ñoo am jom gis nga bi Covid bi amee ñëpp a dem tëju seen kër yi di ut fu ñu muccee waaye ñoom association bi ba nëgëni trésorier nga ne leen nee na ma ñoom rek ñoo daan yónnee chaque fin du seen cotisation ñu bëri am nañ retard waaye ñoom amuñu benn retard ndax seen jom ak seen farlu ñu ngi leen di ndokkeel seen présidente Adja Oumy nuyu nañ leen ziyaare nañ leen di leen gërëm di leen sant waa ngin gi néew waa Ndofane Kasnack 1 Kasnack Kër soose jiite ko par honorable député Thiané Sakho su ma doon lim tey wax dëgg yàlla du jeex waaye da ngeen may baal rek ma lim ku mel ni eh, ñi ci sama gannaaw eh, ku mel ni monsieur Amadou jàlloo waaw monsieur Tamsir Seydou Bab monsieur Babacar Kébé monsieur Anta Diéli ay monsieur eh, madame Aïssatou Diop Sène monsieur Ablaye Ndoye monsieur monsieur Lamine Gueye ak monsieur fàllu fàllu fàllu lan jaay iden donc ñu ngi koy nuyu di ko ak monsieur monsieur Amadou Diallo ak monsieur Diagne Sudes waaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di gërëm journaliste yi fi nekk yépp tamit di baalu ak encore une fois sama doomi ndey nii ci sama gannaaw président chargé des affaires religieuses muy Adja Ndeye Dramé moom itamit di membre ci chambre de commerce di koo xam ne sama seex la ndax président Serigne Mboup daf fu mën geesoo daf na ma ne ana Adja Ndeye fu Adja Ndeye gisee dina ko ne ana Adja Moussou moo tax fu ma nekk rek dama ko daan ñëwal toog ngeen may ma nag ma beral euh, gërmande ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci naaj bi ba ñun ñu mun a toog fii tey ci keppaar gi muy Adja Ndeye Soxna Guèye hmm? Adja Ndeye Soxna Guèye bañ ko joxee projet bi taxaw na ci taxawaay boo xam ne moo équipe technique bi ko accompagner ajaratu Fama Niang buur géwél aaw buur ak aja Ami Ndaw Taal aja Yacine Ndiaye Yacine Gueye wax dëgg yàlla taxaw nañu taxawaay bu rëy bu rafet ak suñu góor na Niang ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen taxawaay liggéey nañ fi liggéey bu mucc ay liggéey bu ñu war a liggéey ci weer ñoom liggéey nañ ko ci benn semaine macha allah fa tabarakallah man nii di wax ak yéen aw ci lu dul pare nañ kaay signé kon nag ñu ngi gërëm di leen sant ci seen taxawaay wax dëgg yàlla ay vrai leader ngeen yal na yàlla gën a barkeel seen yëngatu. ah ñu may fàttali léegi octobre rose octobre rose nag ku xam réseau bi xam ko ci octobre rose on est au mois d' octobre octobre at mu jot dina ñëw dajale lu ma lu néew néew junney jigéen. dépister leen dafa ni ci am ay euh, cas waaw ñi nga xam ne dañu am ay euh, suspect cas yu suspect yi dañ di jël defal leen mammographie suñu amee problème dañ leen di yóbbu Dakar di leen suivre ba fan yii rek am na ci koo xam ne sax opéré nañ ko waaye am na cas yu fi jaaroon yoo xam ne seeni borom wér nañ ba kenn ki sax wasin na fan yële am na yàlla may na ko doom ba mu ngay nàmpal kon loolu yëpp ci liggéey jigéen ñi la ñu sóoraale ci suñu bopp ne dañu war di dépister suñu bopp di làmb suñuy ween waaye itamit di seytu suñu butiti njurukaay yi ndax yooyu yëpp ay cancer la yoo xam ne dafay lor jigéen ñi moo waral tey rose bi ndax ku ñu xam-xam ñu ci blanc vert blanc bi ku ne xam na ne dañuy war weexal suñu xol yi tàll waaye verbe bi dañu jël verbe bu Sénégal ak ver bu Gambie boolante ko teg ko ci suñu kaw muy nekk suñu écharpe boo gisee tey ñu jël rose bi euh, jaabal ko ci c'est à cause de octobre rose moom la ñuy jëmmal pour jigéen ñi fàttaleku seen bopp nañ delluwaat dem saytu ji seen bopp le 22 le 23 ba le 24 lañ koy clôturer nag dinañu def euh, programme octobre rose bi le 24 lañ koy euh, def incha allah fii. ci àndoo ak honorable député sama sœur Adja la président de vice-présidente de l'Assemblée nationale madame Awa Gueye macha allah mu ne ren octobre rose réseau bi na ma ko bàyyee ndax moom itam ci suñu biir la bokk Awa Gueye ci réseau bi la bokk mu ne ren bàyyi leen ma man maa leen ci accompagner le 22 le 23 ak le 24 octobre rose bi ñu sooraale loolu yi tamit incha allah bu ñu jàppee fan lañ koy clôturer dinañ ko wax waaye datu clôture bi moom bi yoon dañ nekk ak Covid bi xëy na dajale nit ñi di leen yóbbu consultation dina xaw a waaye nag dañuy joxe ay bon de yoo xam ne cas yi ñu yaakaar ne dinañ eh, am nañu ay problème ñu jox leen ay bon ñu dem hôpital wala ñu dem ca clinique Lamp Fall ñu xool leen seen yaram pour defal leen dépistage. loolu it dinañ ci waxtaan ak groupement yi pour xool naka lañ koy tëralee ñu ngi gërëm ñëpp nag di baalu àq ci guddal bi waaye nag li ñu war a wax dafa bare gërëm nañ journaliste yi ci seen teewaay gërëm nañ waa chambre de commerce waaye ñu ngi gërëm monsieur Thiam aussi Ablaye Thiam jàmbaar la président Serigne Boub nekku fi waaye wax dëgg yàlla taxawu na dossier bi ba mu jaar fi mu war a jaar ñu ngi leen di gërëm di leen sant salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh